asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu samay mbokk samay doom samay soppee ñu ngi màggale fi guddi gi ne ñu ngi fàttaliku suñu sang bu sell booba nga xam ne moo juddoon ci guddi fukk ak ñaar ci weer wi muy gàmm gu jëkk ga ñu ngi fàttaliku ki nga xam ne moo gën a màgg ci mbooleem lu yàlla bind ñu ngi fàttali ki nga xam ne moo gën a sell mbooleem lu yàlla bind ñu ngi fàttali ki nga xam ne moom la yàlla def di jëm ci yàlla bind ñuy fàttaliku nga xam ne moo xett li doomu aadama ci muy jaamu leneen lu yàlla ndof jaamu lu dul sa borom ki ci xettali mbindeef yi moo di yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa moo ñu goreel ba waratuñoo nekk jaamu kenn lu mooy yàlla mi nga xam ne moo ñu sakk loolu mooy ngoree dëgg-dëgg moo goreel xel yi goreel roxo yi bañ dootuñ geesu leneen lu dul yàlla dootuñ jaamu leneen lu dul yàlla ki indi teraanga jooju ci àddina mooy ki indi jàmm ci àddina moo ñu xoo ñu jëm ci gëm yàlla gëm yàlla ki nga xam ne moom kenn rekk la amul bokkaale du ci jëmmam du ci meloom du ci jëfam moo fi nekkoon ba fi dara nekkut moo fi des bu fi lépp jógee lépp lu am lu moom mooy ki ko xamal te lépp lu mu xamal dana ko ñàkkal des moom kenn kooku rek moo di buur bi nga xam ne moom rek moo xeyoo ñu di ko jaamu kooku it mooy buur bi nga xam ne moom rek am teraanga mooy buur bi nga xam ne itam lépp lu mu am ci teraanga may na ko yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam teraangay jim may yonent bi nag képp ku gëm yàlla gëm yonent bi yow it doon nga teraanga jooju moo tax ñett rek am teraanga yàlla rek am teraanga ak ab yonentam ak ñi gëm yàlla ku dut loolu ku ku gëm yàlla teraanga jooy konte muy teraanga it toroxtaane la ci bëtëb ñi nga xam ne am nañ gis-gis yàlla moomu ku ko xam gëm ko dëgg-dëgg da nga tedd ci moom teraanga joo xam ne dootu ànd ak toroxte mukk da nga màgg itam màgg goo xam ne kenn du la mën a suufeel teraanga dëgg-dëgg mooy teraanga ji ñu jëlee ci gëm yàlla ak topp yàlla niroowut ak beneen teraanga moom lañuy ñuy wax xes du taati teraanga ju jóge ci topp yàlla kooku yonent yàlla yi la ko yàlla may gannaaw bu yonent yi wee ñi gëm yàlla ñoo ko donn ku nekk nag ak sa kem maqaama gëm yàlla goreel nañu moom yonent sallallahu alayhi wa sallam bañ xam ne waruñoo ragal kudut yàlla waruñoo yaakaar kudut yàlla waruñoo toroxlul kudut yàlla yàlla rek moom moom loolu ci doomu aadama mboolem bindee fi ci def yépp ay jaam lañ ay nawle lañ ci ron yàlla ak yàlla jooju nga xam ne moom rek mooy suñu yàlla muhammad mooy njël bi nag jaam yi moom mi nga xam ne moo gën ñépp te moo tax ñu sàkk lépp mooy ci rammu ëllëg ñépp bés ba nga xamee ne dem nañ ca Adama mu ne sama xel daju ramu tey ñu dem ca Nuux mu ne sama xel daju ko ñu dem ca Ibrahim mu ne sama xel daju ramu ñu dem ca Muusa mu ne sama xel daju ramu ñu dem ca Isa mu ne sama xel daju ramu dem leen ci Muhammad ñu ñëw mu ne man maay ci xeloo ramu tey taxaw ramu leen ñoom yonent yi bañ xel bañ mën a taxaw di ramu yonent yi la jëkk a ramu bañ mën a ramu mu ramu wali bañ mën a ramu muy ramu nag da mujj di jëlee ci safara di yóbbu ci aljana di ramm di ramm ba nga xam ne na ne léegi daal yàlla dara defit ci safara lu mooy ña nga xam ne alxuraan a fa tëj mooy ñëwet di woon yàlla mooy képp ku bañoon a wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah waane baat boobu képp ku ko wax te xam ne gëm nga lim lamboo ne waruloo jaamu kenn lu may sa borom kooku moom dara du fayam lu may aljanna yonentu war na ci jëleem togg maas ibnu jabal bañ demee ba ci yoon mu ne ko yow maas mu ne hoyu naa la yow yàlla mu ne yow maas doomi jabal mu ne la yow yonent yàlla mu ne yow maas doomi jabal mu ne hoyu naa la yow yonent yàlla mu ne ko ndax xam nga luy xaq yàlla ci mbooleem jaamam yépp képp kum bind mu ne déedéet yàlla ka bi yonent ma xam mu ne ko xaq yàlla ci képp kum bind mooy nga seede ne waruñoo jaamu kenn lu mooy moom ndax xam nga luy àqi jaam ci boromam su fekkee nangu na loolu mu ne yàlla ka bi yonent ma xam mu ne xaqi jaam bu nangoo ne war na jaamu kenn lu ma yàlla xaqam mooy yàlla dugal ko aljana nugal ko ci safara képp ku yàlla bind te fekk bëgg na la doo dee mukk te waxuloo ne laa ilaha illallah muhammadu rasulullahi gëm ko képp ku yàlla bind ba nga dee waxuloo baat boobu gëmuloo ko yàlla la bind waaye bëggul la yàlla bind mbindeef yépp ci kaw mbëggee la leen bindee waaye it ba mu leen bindee sàkk na ci ay xaritam ak i noonam noonam mooy ña nga xam ne weddi nañu baat boobu yàlla na ne xadduwun lil kaafirina la moom mi bind ñépp bëgg na ñépp ci mbëggeel ak xam gi waaye nag ñi weddi baat boobu na ne moom yàlla noonu na leen ku yàlla noonu nag dara du payam lu may ëllëg safar lay dëkk Muusaa wax na ko ne yow sama borom man yéemu naa sa xam-xam bi sa xereñ bi sa yërmande ji nga bind lu te ni doomu aadama gannaaw bu nga di ko lakk ci safara man de xaw ma a amee yàlla ne ko demal bayi fekk Muusa am a doon métier mu dem bay toolam ba tool ba ñoree mu góob ko bojj ko fab pepp ma yëpp dugal ci magasinam fab xatax ba ak ak gattax ga yëpp mu ratt ko ne ko dur jafal yàlla ne Muusaa déet bay sa tool ba noppi di ko lakk mu ne tool bi ni jaamoon njariñ yëpp fat naa ko lii ab xatax rek la ak gattax mu ne ko sa tontal laa jàngoo ñi nga xam ne gëm nañu yàlla ñëpp yóbbu naa leen ci aljanna ñi nga xam ne bañoon nañoo gëm yàlla nag xatax ak gattax rek lañ moo tax ma di leen lakk ci safara ku yàlla bind te bëgg la dafa lay xiir ci nga wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ku bind ba noppi xaayale boobu baat bind la ba noppi wacc la wacc la ak saytaane mi nga xam ne safara la nekkal moo képp ku ko topp yonentu na ne yéen ñëpp da dem aljanna lu mooy ku bañ ñu ne ana ku bañ aljanna yooyu yonentu bi mu ne ku bañ a wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah kooku mooy ki bañ aljanna yonent bi ñu indil teraanga jurey jooju ñuy jaamu borom bu mag bi nga xam ne borom bu dul moom amut moo mën a yëkkati moo mën a suufeel moo mën a teral moo mën a toroxal moo mën a joxe moo mën a xañe yonent mi ñu goreel ba ñu ne amul benn borom lu may borom boobu moom yonent bi nga am ne moo gën way jëkk ak way mujj mooy ramm way jëkk ak way mujj ëllëg yonent yëpp Ibrahima a ci ëpp maqaama Muhammad a ko gën Muusa a ci ëpp maqaama Muhammad ko gën Isa a ci topp Muhammad a ko gën Muhammad moomu ñun muy suñu élimaan ñuy topp ci moom di julli nam doon julli di jàng téere bi wàccoon ci moom nam ko doon jànge di xoor nam doon xoore di tudde yàlla nam doon tudde yàlla di bañ lépp lum bañoon di nangu lépp lum nangoon ñun ñu yàlla jànge teraanga yooyu nañ sant yàlla yow jullit bi ma yàlla jànge na la sa diine gën mboolem diine yi ndem beneen diine am na diine amoon na lu jiitu lislaam na am waaye ba lislaam san koo ba tey beneen diine newu fi ku diine lislaam nekkuloo ci dara alquran wax ne ne diine fa yàlla moo di lan moo di lislaam ne ku bëgg a jaamoo yàlla leneen lu lislaam yàlla du ko nangu te la da ngay perte yàlla jagleel lislaam boobu ma ne suñ diina mooy diine bi gën ci diine yi te moo diine bi folli mbooleem diine yi ma ne suñ diine boobu moo am téere bi nga xam ne moo gën ci mbooleem téere yi yàlla wasal yàlla wàcc na téeméeri téere ak ñeneen ci téere wàcc na juróom fukki téere ci siisal caatam aadama wàcc na ñett fukki téere ci ax noox mooy idris yonent yàlla idris wàcce na fukki téere ci yonent yàlla ibrahim wàcce na fukki téere ci yonent yàlla muusa lu lu jëkk tawreet ba noppi wàcce tawreet ak linjiil ak zaboor ak alxuraan muy téeméeri téere ak ñenanti téere téere yooyu ne yépp alquran la ci gën alquran jooju yàlla jagle ñu ko ñu nekk xeet yi nga xam ne ñoo gën ci mbooleem xeet yi alquran wax ne kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi nekk ngeen di xeet woo xam ne xeet wu yàlla mas a génnee yéen a lu tax da ngeen gëm yàlla tey digle lu baax di tere lu bon ngëneel gi kat foofu rek lañ koy jële duut ci deret duut ci askan duut ci barab képp koo xam ne gëm nga yàlla gëm nga yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaa ngi diine diine lislaam dugg nga ci ngëneel loolu képp ku diinoo lislaam gëmuloo yàlla ak yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi boo bokkoon sax ci bani haasim aboo lahab bokk rek bàyyi waaye aboo lahab ci aboo taalib mooy gën a bëgg gën am ci njariñ waande bokku ci gannaaw boo xamee ne farisi yi ak sohibu roomi yi ak bilal al yi ñu ngi ca njalaxtan la nga xam ne diine lislaam moom dàq na ay cosaan dàq na ay deret dàq na ay askan ñaari nit rek ñoo am ku gëm yàlla gëm yonent bi kookoy nit ku tedd mooy ku foor fa yàlla ku weddi yàlla weddi yonent bi kookoy nit ku torox mooy nit ku suufee moo fa soo texee di ëllëg ca àllaaxira maa ngi xeesalaat sama woote ci mbooleem ku dugg ci diine jooju ñëw leen dugg ci balaa ngeen a rëcculu te fekk rëcculu jariñ maa ngi yeesalaat sama xoote ñi nekk ci diine ji le nañ góorgóorlu doole jàpp diine ji jëfe diine ji lislaam moo kowe lu dul lislaam jullit moo gën a koor lu dul jullit jullit moo war a ragal jullit jullit war a ragal lu dul yàlla suñu jàppee diine ji gëm ko ni nga xam ne noonu la ware leneen moo ñu ragal waaye ñun duñu ragal leneen ñun ñooy tëkku leneen waaye leneen xelam du nekk ci tëkkuñu yàlla moom teraanga ak kan ak yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak kan ñi gëm yàlla kon ak ku torox rek da nga gëmu diine ji na ware waaye daal képp ku gëm diine ji yaa ngi ci teraanga yàlla wax na itam ne su fekkee gëm ngeen yàlla te def ngeen lu baax te def lu baax mooy jëfi sariatu bi yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa mooy def lu baax ne su ngeen gëmee yàlla tey def lu baax yàlla dana leen samp yéen jullit ñi ci suuf ngeen xatte suuf si naka ñeneen jëkkoon xatteewoon ko Omar ibn ak ña ko topp diine lislaam rek lañ jàppoon waaye ñoo tegoon ci kaw àddina yépp ba jullit ñi bàyyeewoo yoon lañ des gannaaw ba léegi suñ bëggee demati ca kanam jël seen place bu nga xam ne mooy seen place ci àddina si te mooy tegu ci kaw ñëpp di àtte ñëpp xelif ñëpp nañu jàpp ci téere bi yàlla dëgg dëggalal leen lim leen dëhal yàlla du nar ñun ñoo tarde suñ yàkkamtee li ñu yàlla dig nañu dem ci li ñu yàlla wax nañu gëm yàlla nañu jëfe jëf ju yiw mooy topp li sariyaatu santaane bàyyi li nga xam ne sariyaatu tere na ko yàlla dana wax ci alxuraan ne du may ku du jullit mukk muy am yoon ci jullit du may ku gëmut yàlla muy am yoon ci ku gëm yàlla kon nag képp koo xam ne ku jullit am na yoon ci jëm ci yow rek tuumaal sa bopp yàlla narul yow yaa defee gëm rek waaye gëm nag dafa am ay darajay daraja ah, yàlla wax na ne yaa ayyuhal lazina amanu aminu yéen gëm gëm leen kon gëm na am na geneen gëm na ngeen gëm ba àgg ci gëm bi nga xam ne moo leen di may ngeen tegu ci lépp moo leen di may ngeen àtte lépp moo leen di may kenn du am yoon jëm ci ci yéen xanaa yéen yéen am yoon jëm ci kenn moo leen di may ku nekk ragal leen te du ngeen ragal kenn lu tumuranke la lu reelu la jullit ñi nekk ci jamono jile di ragal leneen lu jullit yàlla wax na yonent bi ci alxuraan te yonent nettali na ko ci hadis ne ko dana danaa ni ay ragal ci xol yi ña la weddi ba ñi gëmut yàlla yàllaa ngi sànni ay ragal ci seen xol fu ñu toll ñu ngi ragal ñu gëm yàlla yonent wax ci hadis ne nusirtu bi robo masirata sahara yàlla dimbalee na ma sànni ragal ci xol yi noon yi lu mat doxab weer loolu nga xam ne yonent jàngatoon na ko ca jamonoom yóbbaale wu ko kat fi la ko bàyyi mi ngi ànd ak lislaam ba léegi képp ku gëm diine lislaam jàpp ci na nga ca war a jàppee ma ne lu ku gëmut yàlla daf lay ragal ruux boobu mi ngi fi nekk ba tey te ragal yooyu moo xaat jullit ñi ci àddina fi bennoon yi ak seeni dooleeg seeni pexeeg seeni jumtuwaay yi xalal ak jumtuwaay yi boom seen xalal ju bari ji du jeex ak ji du ñeex seen doodeeg seen ñàkk xam-xam ak seen fasantikoo seen ñàkk pexe lépp terewut ñi di jullit ñi ngi ragal jullit ñi fuñ toll te jullit ñi duñu ragal ñi di jullit jullit du ragal dara lu dul boromam ku dul jullit nag xaw yàlla dana ko ragal moom ku ragal yàlla dootoo ragal lenn lu dul yàlla waaye ku ragalul yàlla itam da nga ragal lépp lu dul yàlla la boo xamee ne sa borom bi nga war a ragal ñeme nga ko Namrod ibnu Kanaan moo fi ëppoon doole moom àddina yépp ba amul frontière ba mu ñemee boromam yow tuuti la ko yàlla xiir yoo ka xalak ragal yoo ba mu bañee ragal boromam ragal yoo moo tax mu far xalaku ndax yooye dañu dëkk ca nopp ya rek di boo guddee bëccëg mu ngi fu mu toll rek ñu ngi dóor ñu ngi koy dóor rek ndax yooyu dal ba ko noonu sappee mu ne sama bopp yi daal nañ ko dagg ma teqalikoo yooyu benn yoon nañ ma tëggal bopp wurus ñu tëggal ko bopp wurus ba mu rafet ak moom ne ko bii baax na mu ne waaw ñu dagg bopp ba dof la fa xamul ne bu bopp daggee dootu mën a dund ragal yoo ko génnee àddina teewal mu ragal boromam te bañ a ragal yoo nañ ragal suñu borom lim ñu sant yomb na lool nañ def lim ñu digal bàyyi lim ñu tere lim ñu digal mooy góorgóorlu di julli julli xoor weeru koor ku am xalal génne ci asaka ku amul alal waxuñ la boobu wax ku mën a dem Makka aji dem Makka aji benn yoon ku ko mënut santuñ la loolu li yomb na torop li ci des ah daganal na xaraamal na lépp lu la tere ma nga def ca wetam loo xam ne dagan na mën ngaa doyloo la leew ba bañ a dem ci li xaraam kii kay muccoog moom yomb na julli juróom soo boole julli juróom yépp mën nga koo julli ci lu yées genn wàlli waxtu ndax julli bu ci mën nga koo julli ci juróomi minute te juróomi julli rek lañ kon julli juróom yépp mi ngi mel ni ñaar fukki minute ak juróom rek la la julliloo ci des bi matul sax genn wàlli waxtu te xam ne moo bind fukki saa ñaar ci bëccëg fukki saa ñaar ci guddi muy ñaar fukki saa ak ñeneen bu ko neexoon mu ne la jàmm ma saa yooyu yëpp wala ma yóbbu la safara waaye may na la saa yooyu yëpp nga di ko defe ci say soxla di ko toppe say baneex mu laaj la ci rek lu matul genn wàlli waxtu ne la loolu moom filil ma ko soo bañee loolu boo dajeeg moom ëllëg te la budda da nga dajeeg moom doo am benn lay mu bindal la fukki weer ak ñaar yépp ci say soxla benn weer rek ci at mi mu ne woor ko soo bañee loolu xoor gi itam waxul ne sax xooral weer bi yépp xamul ne ne weeru koor du weer bi yépp lañu woor genn wàll gi rek lañu woor bëccëg bi rek lañuy woor li ko dale fi fajar xare ba fi jant soye ba jant soye ba ba fajar fi xar kenn wóorul nga xam ne bon fukki weer ak ñaar yi ñu bindal may ñu ko ñu di ci dox suñuy soxla te moom moom jant beeg weer wi asamaan ak suuf moo la moom yow ci sa bopp moo la sàkk moo lay dundal bu ko neexoon mu woor loola jamono lépp boo bañee mu yóbbu la safara xool loolu la lu mooy genn wàll weer ci fukki weer ak ñaar ma ne soo bañee loolu boo dajeeg moom wala te da nga dajeeg moom benn lay doo mu teg ca asaka asaka du dara lu mooy ku am alal ju bari nga dindi ci xaaj bu tuuti jox sa mbokk ya nga xam ne yàlla daf leen a xañ amul dara loolu war nga bu la ko yàlla santu sax nga def ko ngir sa yërmande nga def ko ngir sa jàmm ndax ñaan alal ji suñ doyloo suñ doyewoon alal ji xañ way ñàkk ñi seen xàq bu yàggee kat dafay jur sawra mooy ñe daanu ci seen kaw rek ñoom it balaa ñu dee li wolof di wax balaa maa wax ak malaaka wax ak nit su taxu sunal asaka ngeen gis euh, boom yu bari xam diggante nit ñi waaye asaka tegg na loolu ba nga xamee ne waral na yow miskin mi kat amuloo dara waaye yàlla jox na la xaq ci xaral yi ki nga xam ne am na su la ko su la ko kooko joxut sax sa xol na rek ci loolu xam nga ne sa borom tëralal na la xaq joo xam ne yow yaa ko moom xaj néeg ba itam ku ko man xoonam bi néeg yépp ñu xaj néegam ba ca ndax foofa fa la mbooleem julliti àddina yépp mbooleem gëm yàlla ci àddina fa la ñuy daje di jaamu benn borom rek di topp benn élimaan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñépp seen col lenn lay doon seen wax benn lay doon kuy arab ak ku dul arab ñépp arab la ñuy wax foofa labbayka allahumma labbayk labbayka la sharika laka labbayk inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika laka ku dégg arab ak ku déggul arab ñépp arab la ñuy foofa ngir bennoo ga ñu taxaw ci benn pak boo xam ne balaa ñu faa jóg yàlla ne leen dem leen yéen ñépp baal naa leen seen mboolee mi bakkaar te waralal naa leen aljanna di fuukareeg malaaka yi na na leen sama jàng te leen ku nekk fa mu bàyyi koo ak soxla yam bàyyi ñëw rek ngir sama jëmm ci fii ci xàll bi ci Arafat jangoo di ma tudd di ma màggal seede leen yéen malaaka yi ne ñoom ñëpp goreel naa leen ci safara kon aj ñi ña ngi koy aji aji ñu ko ngir yàlla seeni njariñ lañ fay jëli yàlla na ne dem leen aji ngeen da ngeen fàttaliku seen borom dangeen ngeen ay njariñ yoo xam ne yéen yéen koy jëriñoo lii mooy li ñu lislaam sant yeneen yi ñu aaye yépp nag lu ci nekk luy far farbakan la moo tax yàlla aaye ko yàlla aaye na naan sàngara a naan sangara lu tax yàlla aaye ñu ku naan sangara ba mandi dafay tàggoo kam mën naa rey boppam mën naa rey keneen te du ko yëg ba nag naan sangara rey ba kanam xaraamal na njaaloo lu tax doomu adama yàlla daf ko bind ci fiir su fekkoon ni ni mu bërgëre jub gi ñu ñu ñuy eh, jigéen ñi ci jatt ji noonu la ko maye doomu aadama doomu aadama ñoom dañoo bëri pexe te bëri gànnaay kon ñoom dañu rayante ci jigéen ñi ci kaw piir moo tax yàlla xaraamal góor gu nekk jigéen diw dowut jabaram ngir léegi tey mu ñàkk ca bakkanam wala mu xañ keneen bakkanam yàlla aaya na lekk yàpp mbaam tugal yàpp mbaam tugal dana sos ci yaram jàngoro yoo xam ne du bay borom mukk te yóbbu ko alaxira na bi xaaye gi lekk yàpp mbaam xaaye rek la yàlla xaaye na rey bakkan ndax soo xamee ne rey nga bakkan boo reyee nit ay mbokkam yépp taxaw ci fexe laa rey say mbokk taxaw ci bëgg a fayu boomante ka diwee ba kenn xamut loolu moo tax yàlla xaaye rey lépp lu yàlla xaaye moom loram nekku ca lori ci mu ko xaaye moo ci nekk moom maslaam nekkut ca maslaam ci mu ko xaaye moo ci nekk boroom bi nga xam nag ne moo yërëme noonu moo xame noonu xam-xam bu yaa boobu li nga xam ne moom la tëral jógewut ci xelam kenn xana jóge ci ki sàkk mbindeef yi nga xam ne mooy ci xam-xamam sos mbooleem mbindeef de asamaan ak suuf ak li nga xam ne mooy daw ci kaw ak suuf yépp ci xam-xamam xereñam la jóge kooku kay lim tëral moo gën lépp lu xel tëral way jullit ñi nag tey ba nga xamee ne dellu nañ gannaaw bee loolu yàlla tëraloon ñu wàññeeku ay góor yu xamul dara wala lañ xam lu gàtt la di leen tëralal lu muutu li yàlla tëraloon ñi di ko nangu wooy jullit ñi ba nga xamee ne ñi du jullit far ñoo leen di tëralal loo xam ne fay safaanoo anteeg seen diina ñi di ko nangu di leen yoonalal loo xam ne dafay fenloo alquran di fenloo yonent bi ñu di ko nangu way toskare ñooy jullit ñooy jullit day taxu yàlla di wax naa walan yajal allahu lil kafirina ala almuminina sabila allahumma salli ala sayidina muhammadin fatimi lima fatimi lima bil haqqi bil haqqi wala hadi siratika almustaqim wala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi alazim subhana rabbika rabbil izzati amma salaamun ala mursaliin alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbil aalamiin